Commercial de plomberie du Sénégal CCPS sen touray rectak bi saint Opalia ak savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéene kaay yi. li ci yéene kaay yi dañ ci ànd ak Hadj yi Sénégal mel ni ñu seytaane gane si fan yi ak coowal Ousmane Sonko Adji Sarr observateur xëyee kalaame gi maître Dior Diagne kalaame jaare ko ci bataaxal ci kanamu ki leen bokk njaboote di bâtonnier ordre des avocats kalaame jëmee ci naatangoom maître Bamba Cissé ak maître Pape Samba Sow soxna si la ko metti di lanu ko njortal ne mooy ki bindal Adji Sarr moom Dior Diagne plainte bu mu teg ci ndoddal Ousmane Sonko ci kanamu section recherche gendarmerie bu Colobane maître Dior Diagne bataaxal bi di ci weddi ba mu set wicc waaye di ñaawlu ne yooyu naatangoo doxale di ciy gëtam ay faute ci seenu métier avocat observateur ne maître Dior Diagne nag ci mbir mi dàqul xalaatu yóbbu kalaame gi ci kanamu tribunal ngir yi daan moo waral mu sàkkuwaale ci bataaxal bi ab autorisation ci bâtonnier de l'ordre des avocats observateur ngir nag ak yamale ci wasaare xibaar gi bañ a doon benn nopp fexe na jot ci téléphone maître Bamba Cissé ak maître Papa Samba Sow waaye antuwul Ndiaye njiital ordre des avocats maître Pape Leyti Ndiaye bëggul ci seen ab doxalin ndax ñàkk wàccoog cellal ak yoonal gi seen métier laaj di génne nag ay xibaar yu ñeel enquête bi ca boobu fekk na dossier bi ne ba tey ci loxoy enquête kat yi daan di leen ci war a fekk nag yéenekaay bi wax na ca capitaine Touré moom bu gendarmerie nationale ndax dafa jalgati am déet wàllu li nga xamante ne mooy yoonal gi métier laaj nepp takk der ci vox populi jàng nañ ca ay njaaxalem yu mujj laata mu war a wuy ji ay kilifaam ma nga ca naan ci yéenekaay bi dara jotu ko mu ngeeg yaram gu mat sëkk ko yar moom daf ni déet dafa jàpp ne liggéey liggéey rek la wala ak feebar capitaine Oumar Touré ñu fekk ko ci les échos mu naan ca xëy na dinaa dem kaso de waaye jàpp leen ni ku bëgg réew mi la maa ngi sama sago ak wér gu mat sëkk ci li may wax yépp ci sago laa ko defee bàyyi ja Massiré Touré ne déet li du tayeef liggéey rek wala feebar les échos waxtaan ak ñenn ci kilifa ci li ko mën a fekk nag ci woyu doxalin major Kandji moom daf ko jàppee moom capitaine Touré un mauvais militaire militaire bu bon élément bu rax ci biir gendarmerie mu ne xam na risque ya ko ca mën a fekk moo waral doxalin wi maanaam di gaawantoo ko njëkkante ngir daw génn rang yi commissaire Keita it noonee la gisee kuy jëlalee ngir génn ci mbir yàqu ngor mu ne li muy wax ci dossier bi dara amu ca le témoin ci gàttal dafa blaaj nag ci ndax moom capitaine Touré génie la wala ab dof rek ñu des ak le mi gis ne ginnaaw fitna gi fi woon président Macky Sall jëlaatal na boppam yëf ya ak i dogal démb alxamis tey ji ñu koy def deuil national ngir ab dëj ñeel ñi faatu teg ci oyofal jëmee ci askan wi ci dem bi ci yëkkatee le 19 mars lépp luy ak tere ak dogal ñeel mbas mi ak xeexin wi président teg ca génne ñu ne ñetti téeméer ak juróom fukki milliards ci diirab ñett ci at ngir xëyu ndaw ñeeg seenuk suqaliku le soleil noo la waxee yéene kaay bu an fësale ko moom président Sall ak dogal ya xaaj bu njëkk téeméer ak juróom fukki milliards ngir xëyum ndaw ñi ngir atum 2021 waaye it xaaj beneen ñaari téeméeri milliards ngir 2022 2023 mu mel nag ci wàllu dogal yi président de la république du ci ndax la tribune nee na ma ngay xalaat ci yeesal ñeel gouvernement bi ca nag ñu ne bopp yu yu bari dina wadd laas moom xëy dafa melob dëj bi ànd caagaraaya bu Sénégal ci xëtam bu njëkk ak wert ga mboq gaak xonq ba biddiw bi ca digg ba yéenekaay bi jàpp ne bakkan yi rot nag bari na lool Le Quotidien ne moo tax it ñoo nga ca dëjal ga ak jaale jaalewante sunu biir naka noonu nag war a sargaal ñu làqu ci manifeste yi yooyu manifesté ak coxor gi métit yàq ak rey gi ko lal moo waral lii Quotidien xëy dafa laaj anali des ci image bu Sénégal wàllu wér-gu-yaram la ñuy jeexale ak yéenekaay bi Le Mandat ak bëccëgu tey gi ñu jagleel xeex beeg jàngoro yi Top topp ak pajin mi di prise en charge yéenekaay bi moom lu mu Sénégal dëgërul ci jéego yi ak tànk yi maanaam comptoir commercial de